di perturbé ci école bi solol waa école bi trop sax ñëpp naan faafa faafa faafa faafa man maay kan yow yaay kan xam ngeen fafa bu 2S ñu bëri ràññee nañu ko waaye tey nañu wax moom mooy kan ba muy yomb ci yow mu yombul boo fa defee dix sax yombul television yombul jour ma njëkkee def première émission première émission moo ko defee dama ñibbi dem sama benn kër xarit toog fa di waxtaan mi papito fa laay nekk tout le temps ñëpp waxtaan si gars yi ay ñoom El Hadj nekk fa ay ñoom Grando yi ay ay ay Delphine Bathily ñëpp nekk fa El Hadj Diouf xam xam ni moo gën a nekk star euh, Sénégal booy lim cinq star yi El Hadj Diouf dina ci génn bi ma ñëwee man ni ma see ñoom seen bopp star laa doon jaay di gonfale Delphine di dem Soumbédioune quoi am rendez-vous moom Soumbédioune ne ma faax dama ngi Soumbédioune maa ngi tëfitoo dama al cap ma nëbb sama kanam quoi balaa maa dem fan si di ma solol di ma topp première émission de ñu dem suñu mbéjum ma jël benn affaire bu ko sama kanam gi taxaw quoi naan nii dellu nii ma xool ma def nii def ni def nii gisuma kenn ku ma ne faafa ma xool ko kenn ku ma ne faafa ba suñu cap bi daal di sama bopp di def di tax nit ñi xàmmee rek ma kenn oo ma ma ne dellu nit ma de <laughs> ma.